mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bu loolu jàllee ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci sunu téere bi di riyaadu saalixiin di fàttaliwaat waxi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam niñ leen ko waxe woon ñu war a tàmbaliwaat ci buntub jokk mbokk ak defal lu baax say ñaari wayjur sunu boroom subhaanahu wa taala dafa wax ne na ngeen ma jaamu te bañ ma bokkaale dara waaye na ngeen rafetal itam jëmale ci seen ñaari way jur waaye rafetal itam jëme ci seeni jegeñaale te mooy seeni mbokk ba tey sunu borom subhanahu wa taala moomu waxaat itam ne na ngeen ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne ci moom ngeen di laajante ngir maanaam ci jëmmam ngeen di laajante ci mel ne laajante gi ñuy laajante ngir jëmmi yàlla sunu borom subhanahu wa taala lu ci mel ne di lewaayu nit ngir bëgg mu defal la dara waaye mu defal la ko ngir yàlla mu ne yàlla moom nga xam ne moom ngeen di laajante na ngeen ko ragal waaye te ngeen ragal itam dog ak mbokk na ngeen ragal itam dog ak mbokk wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham ba tey suñu boroom subhanahu wa taala gërëm na lool ñi nga xam ne dañuy jokk li nga xam ne suñu boroom subhanahu wa taala moo digle ñu jokk ko lu ci mel ne say ñaari wayjur lu ci mel ne say jege ñaale wala sax bind bi ñu weesu woon muy say dëkkandoo walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal ñooñu suñu boroom subhanahu wa taala ah, da leen a bëgg lool da leen a tàgg lool itam kon kenn ku nekk war nay fexe di bokk ca ñooña hmm. ba tey suñu boroom subhanahu wa taala wax ne doomu aadama de dénk nañ ko muy di jëmale ci ay ñaari way juróom rafetal di jëmale ci ay ñaari way juróom ba tey sunu boroom subhaanahu wa taala wax ne moom yàlla moo dogal moo wala moo digle moo dogal ñu bañ a jaamu kenn ku dul moom waaye nag ñuy rafetal di jëmale ci suñuy ñaari wayjur daan ne say ñaari wayjur waxtu wu ñu demee ba ba ba mage ba tële wala sax kenn ci ñoom dem na ba mage ba tële waxtu woowu de da ngay fexe mukk di leen wax wax ju ñaaw lu ci mel ne mbassaa wala yàlla na nga dee rek ndax ma noppalu wala ku ne xam ne ne mag bu xawee nekk mag day xaw a naqari deret naqari deret googu nag bul ko ca topp ba tax nga koy wax loo ko wër ta wax moo tax su borom subhanahu la wax ne waxtu wu ñu demee ba nekk mag wala sax ñoom ñaar ñëpp nekk mag wala kenn ci ñoom nekk ca mag fexeel ba bul wax kàddu googu te mooy mbas wala uf wala sonal nga ma yu demee noonu fexeel ba bu leen ko wax nee na del wax ak del waxeek ñoom waxin wu nooy waxin wu nooy te bu leen gëdd mukk del ñoom wax ju nooy te bu leen gëdd mukk hmm. da ngay toroxlu itam ci ñoom maanaam di toroxlu seen kanam waaye tamit di leen ñaanal sunu boroom subxanahu wa yërëm leen. ni nga xamee ne noonu lañ la yare woon ak niñ la yërëmee woon toppatoo la ba nga nekk mag tey ba mënal sa bopp kon ginnaaw ñoom suñ boroom nattoon na leen ñoom it dem nañ ba tële kon fañ la féete woon yow it yaa leen fa war a féete ci yërëm leen ci toppatoo leen ci sàmm leen ndax suñu borom subhaanahu wa ni mu bindee doomu aadama da koy bind mu nekk liir du man dara nekk xale du man dara ñu di ko toppatoo muy dema dema dema dema dema dema dem ba yëg ne moom mi ngi ci kàttan mu ngi ci digg dooleem waaye kàttan googu day dema dema dem ba ca kaw ba ca njombax ndal la mu tàmbalee wàññi ko waat di rës di rës di rës di rës ba nga nekk ba nga néew kàttan lool te mooy dem ba màggat mënatoo dara waxtu woo xamee ne nag say ñaari wayjur toll nañ foofu nag te ngay dund fexee la sàkku àjj na ci ñoom foofu bu leen bàyyi mukk ñuy tumuraanke bu leen bàyyi mukk ñuy tumuraanke dee leen ñaanal yërmande yàlla suñu borom subhanahu wa ba tey boroom bi subhanahu wa taala waxaat ne dénk nañ doomu aadama ñaari way juram muy rafetal jëme ci ñoom ndax kat yaayam daf ko ëmb ci tartar wala ci doyadi waaye imbi ko itam ci doyadi wala ci tartar sonn ci moom lool nàmpal ko lu mat ñaari at léegi xa léegi sax xëy na ñuy nàmpal ñaari at bëreetul waaye ku ko man moo gën mu ne ginnaaw noonu la sa yaay nag sonne ci yow nga xam ne diir ba mu la ëmbee juróom-ñeenti weer yépp ci ak wére di la nekk te ba mu la imbee itam taxul wére di googa dañ wala bu dañee itam téewul ma ngay sonn beneen beneen beneen coono boo xam ne yaa ngi ko koy sonal di yàq ay nelawam guddi di jooy du xam lu lay metti muy jooy moom it léeg-léeg nit ñi tëdd mu jug moom du mën a nelaw ngir rek sàmm la ak aar la kon waxtu woo demee waxtu wuñ demee ba nekk mag war nga leen a fonk war nga leen sàmm bu baax a baax loolu tax suñu borom subhanahu wa taala wax ne na nga ma sant waaye nag na sant sa ñaari way jur de na sant sa ñaari way jur sant sa ñaari way jur hmm. kon loolu ay aaya la yoo xam ne moom la bunt bi jiital su ko defee ñu dugg ci xaddis yi nga xam ne moom la ci yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu mas naa laaj yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko jëf yi ana jën jëf la ci yàlla gën a bëgg subhanahu wa taala yonent bi sallallahu taala alayhi wa ne ko mooy julli ca waxtu wa maanaam bu waxtu julli jote rek nga julli bañ koo yeexe mu ne ko bu jàllee ban moo ci gën mu ne ko bu jàllee ngay topp say ñaari way jur di leen defal njëkk di leen defal lu baax mu ne ko bu jàllee mu ne ko bu jàllee nag jihaad ci yoonu yàlla sunu borom subhanahu wa taala kon gis nga julli la wax ne moo gën a màgg moom la yàlla gën a bëgg waaye bu julli jàllee nag xamal ne li yàlla gën a bëggaat mooy toppatoo say ñaari wayjur di leen defal lu baax di leen defal njekk rawatina ñu dem ba tële mënalatuñ seen bopp dara xadis boobu muttafaqun alayhi la ba tey jële nañ ci abi hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na doom de mënuta fay way juram lu dul ne xëy na mu fekk ko mu doonoon ab jaam bu ñu moom noot ko mu jënd ko goreel ko may ko liberté nee bu fekkente ne am na lu doom mën a fay way juram daal xanaa kon loolu lay doon waaye lu dul loolu rek doom na xam ne mënta fay way juróom xadis boobu muslim moo ko nettali ba tey jële nañ ci abi hurayra moomu radiallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na ku gëm yàlla gëm bis penc nay teral ganam ku gëm yàlla gëm bis nay jokk ay mbokkam bu mu dagg mukk ay mbokkam nay jokk ay mbokkam waaye ku gëm yàlla itam gëm bis penc nay wax lu baax tey noppi fu lu baax yam mu yam fa ni ñu ko waxee woon léegi hadis boobu weesu woon nañ ko waaye li ci li ci li ci yokkuwaat rek li ci yees mooy fal yasir rahima te mooy ku gëm yàlla gëm bis penc nay jokk ay mbokkam nay jokk ay mbokkam hmm. ba tey jële nañ ci abi hurayra moomu radiallahu taala anhu mu ne yenent bi sallallahu taala alayhi wa nee na bi yàlla sunu boroom subhanahu wa taala bindee mbindeef yi ba noppi ci ñoom nee na li ñuy woowe ak mbokk nee na dafa jóg taxaw ne yàlla man de ci yow lay wéeru ci yow laay làqatu waaye nag maa ngi lay ñaan nga fexe ba bu ma kenn dagg bu ma kenn dagg sunu borom subhanahu wa taala ne ko ndax bu ma la defalee képp ku la jokk ma jokk ko képp ku la dagg ma dagg ko ndax doo bëgg mu ne ko axa kay mu ne ko kon defal naa la loolu képp koo xam ne jokk na la rek mi ngi lay toppatoo yow mbokk man it ma ma jokk ko waaye képp koo xam ne mu ngi lay dagg itam ma dagg la yonent bi sallallahu taala alayhi wa bi mu waxee xat bi mu waxee loolu ba noppi dafa wax ne dellu leen jàng li sunu borom subhanahu wa taala wax ñoo ñi nga xam ne dañuy wan ginnaaw lislaam nekk ci kaw suuf si di fi yàq waaye rax rawatina nag di dagg seeni mbokk mu ne ñooñu de sunu borom subhanahu wa taala rëbb na leen te it sunu borom subhanahu wa taala yëmul ci rëbb leen waaye dafay tëxal seeni nopp ba duñu nangoo dégg dëgg waaye gumbaal seeni bët itam ba bu ñu gisee dëgg itam duñ ko nangu te loolu gis nga ñooñu ña ko suñu borom def mooy ñi nga xam ne dañuy dagg ak mbokk waaye rawatina nekk ci kaw suuf si itam di fi di fi yàq rek di sos ak mbon ci kaw suuf si nee na ñooñu loolu la leen suñu borom subhanahu wa taala di defal kon loolu itam jar naa wattandiku lool jar naa wattandiku lool xadis boobu muttafaqun alayhi la ba tey jëlee nañ ci abi hurayra moomu radiallahu taala anhu mu ne dafa am benn waay bu masoon a ñëw ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi ana kan ci nit ñi moo gën a yay ci ma defal ko lu baax ana kan ci nit ñi moo gën a yay ci ma di ko defal lu baax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko xanaa sa yaay mu ne ko bu jàllee yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko waat sa yaay mu ne ko bu jàllee yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko waat sa yaay mu ne ko bu jàllee mu ne ko sa baay door koo wax sa baay nga xam ne tudd na yaay ñetti yoon door koo door koo wax door door door a tudd baay ba tey ci beneen riwaaya itam noonu la lam ca dolli rek mooy bi mu ko laajee ne ko kan laa war a gën a defal lu baax kan laa war a gën a rafetal jëme ci moom daf ne ko sa yaay ba muy mat ñetti yoon door caa teg sa baay waaye door koo wax itam ne ak képp koo xam ne rek jege na la ku la gën a jege rek nga toppoo ko noonu maanaam sa baay bu jàllee sa yaay bu jàllee ku la gën a jege rek booy defal lu baax nga defal kooka door a defal ko ca topp. Hmm. su ko defee ci xaddis boobu nag moo tax am lenn ci boroom xam-xam yu ñu wax ne bu fekkente ne nit ki li muy defal ñaari way juram daf koo xaaj ñeenti xaaj ñetti ya na ko féetale yaayam benn ba mu féetale ko baayam benn ba mu féetale ko baayam. wallahu ba tey jële nañ ci abi hurayra moomu radiallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na ay waa ji ako torox ay waa ji ako torox ay waa ji ako torox ñu ne ko waa yow yonent bi sallallahu alayhi wa kan moo torox foofu mu ne ki torox dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne dem na ba ay ñaari way juram nekk mag màggat mu sàggan ci ñoom ba amul àjjana ci ñoom koo xam ne say ñaari wajur nekk nañu yow ba màggat dem bàyyi la te amoo seen ngërëm nee na kooku de bu ñuy wër ku torox dëgg-dëgg mën nañoo xool kooku ki nga xam ne daal dund na ak ay ñaari waajuram ñu dem ba màggat te musta soreel seen xool yóbbaalewul seen yóbbaalewul ngërëm maanaam seen i wayjur ngërëmuñ ko door a dem yonent bi nee na kooku daal wax dëgg yàlla ku torox ku torox la kon sa ñaari way jur bu ñu màggee niñ ko waxe woon ci niñ weesu woon buñ demee ba nekk mag mënalatuñ seen mënalatuñ seen bopp dara bu boobaa yow yaa fa nekk yaa fa sës yaa leen war a toppatoo yaa leen war a sàmm yaa leen war a aar képp niñ la doon sàmmee bi nga nekkee xale hmm. xadis boobu muslim moo ko nettali ba tey jële nañ ci abi hurayra moomu radiyallahu taala anhu mu ne dafa am benn waay bu masa ñëw ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ko kalaameek ay mbokkam ne ko yow yonent bi man de samay mbokk dañ maa jaaxal lool ndax man kat dama leen di jokk te ñoom duñ ma jokk maanaam dama leen di nemmiku di leen seeti te ñoom duñ ma defal loolu may rafetal saa su nekk di jëme ci ñoom lu rafet lu ne ma koy def ngir ngir ñoom waaye ñoom lu ñaaw rek lañ lañ la ñuy def ci man ma lawet lool itam ci ñoom toroxlu loolu itam ci ñoom waaye ñoom jëfi xamadi rek la ñuy def la la ñuy jëflanteeg man moo tax ma ñëw di la kalaame yonent bi sallallahu alayhi wa ko ah bu fekkent ne de nii nga ko waxee noonu la demee de xamal ne yaa ngi mel ne kuy jël doom bu tàng di ko sol ci seeni gimiñ ñu di ko wanaasu te it xamal ne bu fekkente ne sax nga ci lii nga wax xamal ne say mbokk ak lu ñu bari bari bari pexe duñ la mënal dara saa su nekk suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi ànd ak yow di la dimbali ci seen kaw bu fekkente ne nii nga ko waxee noonu la demee kon gis nga nit ki bu la say mbokk bëggul yow bëgg leen bu la say mbokk dul dimbali te nga mën leen a dimbali itam yow dimbali leen bu la say mbokk dul nemmiku itam yow dee leen nemmiku yow daal deel xool àq ji nga xam ne rek moo la war waaye bul ne ñoom àq ji ma war ci ñoom dañ ko war a defar par force yow defal li la war rek defal li la war rek kon su ko defee xam naa bunt boobu foofu la yem wala boog astafurlaa yamul foofu bind bind bi la yemale foofu ngir waxtu su ko defee ñu jàllaat rek buñ ñëwaatee ci li nga xam ne moo desaat ci bunt bi ñu toll jërë ngeen jëf di leen jox di daje ci beneen altine insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu